ànd ak Sidi Ahmed si ak Serigne Assane si ak nga xam ne ñëpp xam nañu fi ñu féete woon soppee Cheikh Mouhamadou Bachir ba ci Cheikh Abdoulaye Sy Lo euh, Kounta jóge na fa Canaba Serigne Souleymane Seck jóge na fa ànd ak Cheikh Ahmed Tidiane Seck ànd ak sëriñ Madické Seck ànd ak sëriñ Ablaye Seck xalif général bu Bambilor ñu Thierno Amadou Ba ñëw na fi ànd ak délégation bu mag a mag a mag mu boole ci ay imam ak i oustaz ak i borom xam-xam ak i sax ay daayira sëriñ Touba yu fa nekk. ambassadeur bu Palestine def na ko na mu ko daan defee moom lu xew Touba kenn du ko fi jiitu son excellence ambassadeur bu Arabie Saoudite dafa tukki waaye yebal na la chargé d'affaires dafa defee jotaay bi jotaay bi ngoon waaye mi ngi ci wi ñëw ambassadeur bu Émirats conseil spécial bu ambassade ba mi ngi fi gouverneur bu dakaar Amadou Fall ñëw na fi gouverneur bu Louga ñëw na fi gouverneur bu Thiès it ñëw na fi sëriñ Modou Ngom mi nga xam ne moo teewal Cheikh Mouhamadou Kara Mbacké ca diwaanu Thiès it mi ngi ci jotaay bi sëriñ Modou Kara it yebal na mbooloo mu yaatu ñu ñëw jàppale sëriñ Bass ci organisation bis bi ñoom ñu ngi leen sant bu baax. oustaz Ahmed Dame Ndiaye bi nga xam ne moo jiite kuréel bi ñuy wax ni rabitat aima wa duat fi Sénégal di kuréel bi nga xam ne moo lënkale ñuy wax association islamique ak imam yi Sénégal ñëw na fi ànd délégation mag boo xam ni ay inspecteur d' enseignement ñu ngi ci biir ak imam ak i borom xam-xam Serigne Dame Ndiéguène Serigne Dame Ndiéguène ñëw na fi teewa fi mboole seen ahlu Ndiéguène ca Thiès Serigne Khalifa Kayre kilifa diine gu mag ca Thiès moom it teew na fi teewaaleen boole seen imaam yi ak borom xam-xam yi Thiès ànd ak délégation bu mag ànd ak it waa këram kon loolu mooy délégation yi nga xam nga ñoo ci kër diine yi ñu ngi ko doon jotal sëñ bi ngir mu xam ne teew nañ fi am na yeneen délégation xam ne ñu ngi ci yoon mi sëñ Mourou Abdou Diouf na ma léegi ni ma délégation bi jóge ci sëñ Mouhamadou Moustapha Sy zaimul mustashidin wal mustashidat ñu ngi ci yoon wi di ñëw sëñ Mansour Ndiol ma nga ca délégation ba ak Serigne yeneen mbooloo yu ànd ak ñoom sëñ mu mu mu abdour woote na léegi euh, feeñal ko kon daal sëriñ bi délégation yaa ngi noonu ñoom ñëpp wuy si nañ la ci sa baay bu tedd bi war naa ko ñoom ñëpp wuy nañ bis bu tedd bi nga xam ne bisub ñaan la bisub sant yàlla la bisub sàkku barke la bisub defaru la kon daal lislaam bi yëpp wuy si nañ la tarixa yëpp wuy si nañ la xam naa ginnaaw da ngeen a xam ne bis bi dafa xat ci sëñ bi dañuy def jotaay bu gàtt rek ndax yeneen jotaay dana amaat fee ngoon bu ko defee dañuy jox délégation bi nga xam ne jóge Tiwaawan ñoom bu ñu waxee rek mën nañoo wax ci turu tarixa yëpp. kenn di la masaw ci turu ak ndigalu sa njaboot bu tedd gii ñu àndal di sa waa kër muy Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy ak Serigne Sidi Ahmed Sy ni ñoom seen ñëw ci jataay. am na lu muy firi am na lu muy li muy firi li muy jëmmal mooy sa cofeel ak sa fonkeel ak jëm ju tedd ji fi jóge di Mawlana Cheikh Abdoul Aziz Al Amine yàlla ma ñu fa bàyyi ca bëggoon a ñëw ak nuyoo Serigne Babacar mi taawu Cheikh Abdoul Aziz Al Amine ak nuyoo ka nga xam ni moo amee kàddu famille ba di sëriñ Pape Malick ak sëriñ Hadj Malick Abdoul Aziz nuyoo bi di yéeg ba ci xalifa bi Cheikh Aboubacar Mouhamadou Mansour kon sëriñ bi waa Tiwaawan yëpp ñoo teew muy si la muy si sa ay mbokk tabaarakallah mbokk seen yow bis bu tedd bii wax na itam nuyu këru diine yi fi nekk yëpp tabaarakallaahu ca kenn ku jëloon wax lu gën a mat li ñuy wax ca suñu mbokk mu tedd mii di sa ambassadeur di borom yitte di borom taxawaay sëriñ Abdou soppoon ko lool ngir yitteem muy Seydi Ahmad Saloum tudd na leen léegi muy la tàmbalee Ndiassane di yéeg ba ca maam Kër Alaaji di yéeg ba ca Ceneba tabaarakallaahu ñi yëg ba ca bambiloor ñoom ñépp sëriñ bi ñi ngi yenn suñu nuyoo def ko ci benn paquet boo xam ni cofeel ak fonkeel ak wormaal paquet boobu ñi ngi ko ëmbe wurus ak xaalis teg ko ci sa loxo nga nangul ñu ko suñu ko tegee ci sa loxo teg nañ ko ci loxo ki nga xam ni mooy bopp yoon bi di kilifa gi di a cheikh Mouhamad Mountakha Mbacké ndax ku la tudd tudd ko ku ko tudd tudd la noonu la yàlla dogal suñu la nuyoo ziar la nuyu cheikh Mountakha ziar ko nuyu nañ ci seen jëmm mbooleem ku bokk ci maam cheikh Ahmadou Bamba mu mel ni sëriñ bi ñun ñi ñëw ñëpp yëguñu ni nekkuñu ci suñu kër waaye dañoo yëg ni ci suñu kër bon bopp la nekk dañoo yëg ni it ñu ngi suñu weti mbokk ngir xam ni buum yi nga xam ni moo takkee mag ñi muy mbokk di wëllëre di jëfante bu rafet tabaarakallaahu yéen ñi fi des yéen a koy suuxat seen kéemtalaay kàttan te loolu ñëpp mën nañ ko seede tabaarakallaahu loolu yal na ko yàlla sàmm yal na ko yàlla saxal hada huwa al islaamu yajmau baynana wa diinu asdaqu rabitin wa shiaari noonu ñu mën a waxee ci këru diine yi noonu la ñuy waxee ci jam euh, jamiya bi nga xam ne mooy a aima wa duaat te oustaz Dame Ndiaye jiite leen tabarakallahu ak suñu mbokk mi mu àndal tabarakallahu ñoom ñëpp ñu teew ndokkeel sëriñ bi mel na ni bis bi xam waaye njaboot Cheikh Abdoul Aziz Al Amin famille Seydil Hadj Malick ñi ngi fedd li buum yi takkewoon mag ñi fedd li cofeel ga fedd li mbokk ga fedd li wëllëre ga di ànd ak ko sàmm insha allah di la sant di la gërëm ci sa taxawaay ndax mag ñi dañu wax ni ku yokkul yaa wàññi te wax dëgg yàlla yokk wàññi woo da ngaa yokk ndax ku ku nekk gis na li fi xew te li fi xew yëpp mbaax la ak jikko mag ñi waxoon nañ ni bi sallallahu alayhi wa sallam na ni mun leen a daj nit ñi ak seen alal waaye man ngeen a daj nit ñi ak seen mbaax mooy seeni jikko waaye Cheikh Mouhamadul Bachir jëfante ndax jëfante ndax këru diine yi jëfante bu rafet ci ku xew leen nga yónnee dem teew boo ma ne jëfante bu rafet ci jokkoo jëfante bu rafet ci nemmi compte tabaarakallaahu bu ci Cheikh Abdoul si ak léegi jamono du nekk yaa ngi yëkkati sa kaddu di nemmi ku njaboot gi di seet muy toogee loolu nag mbàkke sa mbaax la ñu seedal ko àdduna bi yëpp ñu yëpp wane na li sëñ Babacar daan wax wëllëre wuy màq moo màtt moo gën bay weq tabaarakallaahu yëpp nañ ni yaa ngi dunde noonu yàlla yàlla saxal la ci yàlla dëgëral la ci noonu nga koy defee ak yeneen këru diine yëpp ndax tey këru diine yi ku ci nekk doyloo nga yàlla doyloo nga la nga am waaye boo amee bis ñoom ñëpp ñu màbb ñëw fekk si fekk si la toogandoog yow ne na ni wa man sarra ahlal ard summa baka asad baka bi uyunin sarraha wa yow mbégte moo am yàgg ñëpp a koy bokk yàlla boo am naqar waaye boo ko amee it yàgg ñëpp koy bokk ndax sa jëfante ak nit ñi ñu ñëw nag ci bis bu tedd bii nga xam ni ñu ngi ciy fàttaliku jëmm ju tedd di Cheikh Abdou Khadre Mbacké yàlla boole ko ci jaam yi nga xam ni seen jëmm doon la fi jóge waaye lu dul seen jëmm jógewu kan maata xawmu wa ma maatat makaarimuhu wa aasha xawmu fi nnaasi amwaatu yàlla boole na ko ci ñi nga xam ni sell ga mbaax ga tabe ga yiwe gam daan dunde ba léegi ndaw lu ci roy di nga àgg ci yàlla di nga xam su yàlla liggéey kon nag tabarakallahu loolu mooy njariñu fàttaliku mag ñu baax ñoomi le kon nag Mbàkke ci turu këru diine yëpp ak turu Tiwaawan ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ndokkeel ñu ngi lay ziar kaddu gi mënoon naa gën a gudd nii waaye maa laa yumkinu kulluhu laa yudrak kulluhu li ñu bëgg a wax yépp suñu ko waxee nit ñi jëppiñu ndax suñu cofeel ci yow ak ni ñu la jàppe ak ni ñu la téyee te yàlla xam na ko yàlla seede na ko loolu nag ñu nampe ko donne ko ci sëñ Abdou daf ñu daan wax ni Mouhamadul Bachir na ngeen ko bàyyi xel ndax ndaw la ci ay at waaye dafa yenu yenu mag ku yenu yenu mag nag war nañ laa bàyyi xel ci xalaat bàyyi xel ci di la ñaanal looloo tax ñëpp bàyyi nañ la xel ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal lii ma wax nag su ko mbokk yi waxoon mu gën a rafet gën a mat waaye nag nii lañ ko mën a tënkee ngir sàmmonte xataayu jataay bi wa bil munasaba nu xayyi xudur saadati safir alfalastini bi taqdir alaali alladi yukinnu lahu kulla mahabatin wa ixtiraam wa nakunu maakum bi janibikum insha allah تعرفون أن السنغال يتضامن دائما مع الشعب السنغالي الفلسطيني إن شاء الله نكون معكم في آمالكم وفي آلامكم إن شاء الله جزاكم الله خيرا ووفق ووفق بالتوفيق الله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you. kër gi ci teew di suñu mbokk kër gi ñu ñu ko nañ ci déglu seetee daa waxe ñoom ñi nga xam ne wax ñu teel ñu wax ko te ngeen ko fexe mooy kër gi kon ñu ngi ñu mboolem suñu mbokk kër gi rawatina suñu mbokk kër gi bay ñu kenn nag li ñuy wax gisul layata gisul li mu nekk leer na damaa dégg jéem a gis nga li mu wax wax yoo xam ne mu ne li mu wax kër yi dañuy wax kër bu ñu ñëwee kër bu ñu ñëwee ndaw mooy li mu war a ñëw waaye léegi nawet bi dañuy wax kon li mu bokk li mu war a gëm mooy bu ñu santee kenn tudd kenn tudd ñëpp kon nag ñu ngi koy tàmbalee ci ci njëriñu Cheikh Sidi Hadj Mbaye si ak ñu bàyyi ko Kaolack ñu ñu ñëwoon ñu dégg suñu am ñu ko ñu bàyyi ko Kaolack ci waa kër Cheikh Hadj Mbaye ak waa kër waa kër ak ñu bàyyi ko Thialala ak ñu bàyyi ko Ndiassane ak mboolem imaam yi nga xam ne ñu ngi tàmbali mboolem xarit bi day daal di fàttaloo. ak mboolem kër yi nii waaye wala wala ñëpp ñëw. kon ñu ngi teg ñëw ci loxol Serigne Cheikh Amadou Dia si. li nga xam ne moo ci délégation bi fay ko ci wàll. te buñ ko tuddee ñu tuddee ñëpp. bu dee yëngal ci nuyoo ci Serigne Madia. Serigne Babacar Sy Mansour. ñi nga xamante ne ci bëggoon yàlla moom la suñu borom teg yeneen ci loxo te suñu borom wax ci alquran innahu aalama mu wàcc ci ba ca Serigne Pape Malick Sy ñi nga xam ne moom Serigne ñoo wax lépp te ku ko gis rek sax na leen ko mu fàttali ko baax ci Serigne Mor si ñu fàttali ko délégation bi ba agsi nag ci ci nga xam ñi nga xam ne nag ñooy suñu njaboot di suñu ñëpp di Serigne Babacar Sy te ñu Serigne Babacar Sy si atam yi nga xam ne mooy suñu ci kër gi kon ñu ngi koy yóbbataloo di ko sant di gërëm ci taxawaayam ak yéene ak xol ñi nga xam ne mooy moom àgg ci moom mooy rek wëlbatee ne am ko wëttal naa ko ñu ngi koy ñett ba mu ko

am nay ndaw waaye kenn mësu koo ci dara lu may jëm kon moom yàlla rekk ko mën a fay waaye moom mii nag dégg na mission bay jóg ndax bu fi xew dana ñëw ànd ak mbooloo ànd teraanga joo xam ne day xam ne fii la dëkk lu fi xew itam dana bàyyi ay yitteem donte xat na ànd ko ñu kon ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal mission boobu bii nga xam ne mission bu diis la waaye nag xàllal nañ leen ko ba jaar jaar rek jërës yàlla ko yàlla àggal di nuyu itam Serigne Sidi Ahmed si mi nga xam ne at mu jot moom la fa bi daal yàlla kon lii dafa dolli dafa mel ne Serigne bi dafa ñëw tey Serigne Sidi waaye waaye da ngay yëngu ko ak mbégte ndax bu accès état bi tàng tàng mu métti métti day xam ne moo war a dundal dëkk xam ne fii la dëkk xam it suñu joxee ci sëriñ bi am jafeelu sëriñ bi ci ñun te muy loo xam ne incha allah ba keroog ñuy sàngoo suuf saa suñ xëyee danañ ko sant bi ko fàtte ndax la suñu loolu def ci suñu diggante bii di teraange ji accès fii yàlla lu na bind xam ne comment te demee seere wakka fii bindee chahida yàlla xam ne ne ba deux heures ci guddi maa ngi ci waxoon ndax sama xel nekk sëriñ bi kon loolu yéen itam mot li ngeen ngërëm ko di Xasan si moom itam moom suñu doom maam Cheikh gis nañ liggéey bi ñuy liggéey mu luy jokkale rek kër yi di nuyu itam suñu wëllëre bopp suñu xarit di suñu sopp di sëriñ Xalifa moom fi àgg ci sama digg moom yàlla rek ko mën a xam ndax lu xew ci sama digg sëriñ bi kenn ëpp ko ci seere ndax fu ma mas a jot sëriñ bi rek moo ko jox téléphone fu ma sëriñ bi mas a wooy wala ma soxla koy ci moom lay jaar mu taxaw ci taxawaay ba gën a rafet ndax kilifa am na loo xam lu mu baax baax ñoo ko wër rek ñoo ko mën a mottali waaye mu am ci man cofeel goo xam ne xam mu ko ñii ne ci sama biir yi te yàlla xam na ko ñu seq itam loo xam ne du wax mbooloo waaye moom xam na ma xam waaye fenn fu ma ko yemale ci sama biir amut léeg-léeg mu ñëw fi te sama néegu biir bi may fanaan laa koy dugal kon desul mu ko dara seq na lu bëri loo xam ne waxtu di ko sant itam ci ni mu àndee yéen ndax sëriñ bi doy la woon na ko bàyyi fi ñëpp jàpp ko fësal ko ba ñëpp xam ko kon nag moom itam ni mu def gannaaw sëriñ bi jël léppam suur lépp yem ci sëñ bi rafet la kon ñu ngi koy ñaanal moom tam yàlla gën koo kattanal gën koo dëgëral ak dundu itam seen mag di suñu wëlleere sëriñ Moustapha sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane mu ngi leen ndax sëriñ Cheikh ak sëriñ bi li sadinatan bi kullil janna min daari minan yaatal minna li sadinatan bi kullil min daari